beneen tiis bu wàcc dal ci umu islamique bi rawatina murit yi Serigne Ndiaga Diop Baye Fall ñu xàmmee ci di waxtaane sangam ba di Cheikh Ibrahima Fall ñu bari ràññee ci quartier général bi ñuy amal ci koor gi ca TFM. Cheikh Ibra Fall nee doom ñii du julli maa leen gën xam julli daanaa julli téeméeri ràkk Cheikh Ibra da daan yëkkati tànkam bi mu mel ni aw dojo ni ci tànk mu ne ñii sujjóot ñëpp maa leen dàq sujjóot téeméeri rakk laa daan julli waaye nee na xamoon naa ne dinaa ci mës a génn suñu borom la ma ci lu ngeen xamul ci lu ngeen xamul waaw lu ngeen xamul ndeysaan gars yi Cheikh Ibrahima nee na xaj bu tëddee ba guddi ba ki xamul dara nelaw ba wëlbatiku Cheikh Fall la jàng ne xam dara di jaamu yàlla nee na xaj da di gis ñoom ñaar mm-hmm. daal di baw ne xam-xam na xamul xamul xam-xam na xamul xamul xam-xam na xamul xamul nee na ñi xam ñu ngi ci yàlla ñi xamul ñu ngi nelaw rek waaye da di bàyyi ba ñu wëlbatiku nag ba xool mu wax loolu ñu tëddaat mu naan ndeysaan xamul de. est-ce que. waaye nee na xam nga lu tax mu naan. noonu xaj. sëñ Mbacke Ndiaye Abdou Socé ma ko wax de. ne xam nga lu tax Cheikh nee na xaj naan bu bawee ba noppi nee naan danaan baatin raw na yaxub xikam. baatin raw na yaxub xikam firil ñu ko ba mu gën a suufee waaw kay ah waaw nee na sagesse bul ko am mukk ba defe ne borom baatin yi sa moroom lañ parce que tu sage am nga xel yaa ngi xalaat yawu nga Cheikh Ibra nee na boo defee ne baatin borom baatin yi sa moroom lañ juum nga de moo tax mu ne baatin raw na yaxub xikam neel moom la xaj di wax di guddi nee na diggante bi mu koy wax nag ki xamul dara ci yàlla ak ki xam dara ci yàlla lay waxal Cheikh lu masa wax xam na ko nee na nag Mor Moustapha Mbombe ture moomu Baye Cheikh Ndiaye daabaay nee na ma Mor Moustapha Mbombe Touré ca la Cheikh Ibra mujje ndax nee na booba doom njabootam dañ koy xeeñ xetu wàllu njabootu mormoto Mouta fa Mbombe turi turi yi ñu baax lañ wallaahi sëñ Touba nee na Seydina Jibril bu daan ñëw ci man sëñ abdu Karim Touré lay nuru jëm moom lay jël waaye Cheikh Ibra nee na keroog ba ma nekkee foofu di ko liggéeyal gis jenn doomam xetu wàll xeeñu ma laa ne kii du sëñ Bamba dafa baax rek Cheikh Ibrahima ni mu daan xamee mbir bokkut ak ñii de ku ci jàng ñaari téere nag defe na sa morom la te kat xam ngeen alxuraan ak addis lu mu ci wax Cheikh Ibrahima nee na déglu leen bu baax waxin bi nee na alxuraan watiit la xaddis xubbit la watiit ak xubbit xam ngeen ko ne taxul nga daj ak jaan bi watit mooy fi jaan ji jaar Mm-hmm. moom la alxuraan di nettali. yoonu jaar fi yeneen jaar. Mm-hmm. laxat kaana fi qasasihim ibratun <laughs> waaw. Mm-hmm. alxuraan nee na watiit la. fi jaan jaar la lay wan. nee na xaddis xubbiit la. jaan fi ne ba mu yàgg mu gedd gedd der bi mu yoroon. wàcc ko fa. ne sallallahu alayhi wa sallam noonu la de. moom Serigne Daga Diop moomulee moo fi bàyyeekoo niki tey ci àllarba ji ñi di ko jaale Sénégal yépp rawatina Baye Fall tey ñaan suuf oyof ci kawam.